asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg bi bàyyeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak je Koli ñu seeti boppu xibaar yi. ministre bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi ci biir réewu Gambie bi muy wuyoo ci docteur Ahmadou Lamin Samate ci àllarba bi moom naka moo waat lool li war a toll si ñeent fukki ndaw ak benn yu ñu tànn es pour ñu liggéey ci banxaas bu yëngu ci wàllu wér-gu-yaramu tubaab gi matuwaay gi naka ñu jël ko rek pour gis ne dooleel nañ lu aju ci wàllu fajub tubaab gi. Bloombank Gambia ci alxames bi ñoom nag ñoo ngénte ab sarta gu ñu tëral ko ci seen wàllub liggéey gi sarta gi nag na jàppale seenub client yi pour lépp loo xam ne ñu ngi ko nar a def ci biir banque bi ñu defee ko naka ci seenu mobile yi. Global Properties Company doon company goo xam ne naka dañ lay yëngu ci wàllum njënd ak ñaayu pàkk tamit di samp ay kër di ko jaay ci alxames bi ñoom ñoo ubbi seenu bureau bu ees bu ñu dugal koppar kuy war a toll si ñaari million ci xaalisu dalasi. mbokk yi doon bopp xibaar yi ñu taxilu bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yi fi jot am ci bëccëgub tey bi kilifa gu ñu dénk jëwrin bi saytu lu aju ci wàllu fajub tubaab gi muy wéer ci docteur Ahmadou Lamine Samaté moom moo war li war a toll si ñeent fukki ndaw ak benn matuwaay bi mu jël ko rek pour gis ne doole nañ naka lu ajo ci wàllu wér-gu-yaram bi mu ñëwee ci biir réewu Gambie bi ñeent fukk ak benn ndaw yoo xam ne naka ñu ñu la waatloo es digge nañ ne dinañ def seen kéemti lay kattan pour gis ne taxaw nañ askan wi lu aju si seen yelleef seen bakkan tamit jàppale leen ci feebar yu mettit yoo xam ne naka ñu ngi koo jànkuwanteel bu ñëwee ci biir réew mi ministre bi di docteur ahmadou lamine samate ginaaw don garal kàddoom si ubbiteeb ndaje bi wax na ne ndaw yu ñu es pour ñu liggey ci banxasu wér bi dinañ doon ño xamne ne naka dinañ lëkkaloo ak kilifa yu fa nek di liggey pour gis ne indi nañ ci naka ap yokote mu ne naka doon na ño xamne naka dañu am xam-xam gu màcc jëmale ko ci walu fajub tubab gi ndaje go xamne naka ñu ne ndaje gu am solo la lo nañ fa naka ndaw yi ni te ñi naka jot nañu ndar keppal ñaari atum jang go xamne naka ñu ko doon def jëmale ko ci walu fajub tubab gi ki nga xamne naka ci Niassène bu Medical and Dental Council bi muy wéy ci Dr Melvin George mom naka wax na né si jamono ji naka mu ngi rafetlu matuwaay way go xamné naka kilifa jël nañ ko pourtant tànn xarañte fi ngir ñu liggéey naka ci walu wér bi mu né li wara toll si ñeen fukk ak benn nit gu ñu tànn jamono ji naka mel ni ab yokuté la ndax naka fukk ak juróom don na ñoo xamné naka ay goor leen naka ñaar fukk ak ñetti don na ñoo xamné naka ay jigéen leen mu né naka mu ngi leen di di leen wax né naka pour ñu gëna fas jëm jëmul ko naka ci liggéey bu ñu nekk di def docteur Ahmadou Lamine Samadé moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi moom naka delloo na njukkal waajur yi ak ñi nga xam ne naka ñooy jàngalekat yi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour dooleel taalibe yi jàngal leen ab yokkute bu ñëwee naka ci naka jox leen xam-xam gu màcc goo xam ne naka mu ngi xam naka def nañ ko seenub si jamono yuñ doon jàng mu ne lii la ñu naka la ñu ci suñu réew ndax lii naka mooy mën a isi ab yokkute ci bànqaas yuy liggéey ci ron nguur gi tamit naka nañu jàppale ci defaraatu bànqaas yoo xam ne naka ñu ngi koo def pour gis ne nañ askan wi ci mbir yoo xam ne naka moo leen nekk di sonal ginnaaw naka bam leen doon ñaax pour ñoom ñoom ñu lëkkaloo gis ne naka liggéey nañ ci mbir yu qualité mbir yoo xam ne naka ñooy dooleel wàllu wér-gu-yaram bi moom docteur Ahmadou Lamine Samaté wax na ne si jamono ji ñu ngi jéem a fexe naka pour gis ne samp nañ ab bureau bureau goo xam ne naka bureau bu yaatu la moo doon te dafay am naka ay jumtuwaay yu ñoo mën a jëfandikoo jëmale ko naka ci seen wàllu faj mi te lii naka dina dooleel bu baax su wér bi professeur Pierre Gomes moom doon ministre bu ñu dénk wàllum njàng kaw gi ak docteur Melvin George moom mu doon chairperson si banxaasu Gambia Medical and Dental Council bi ñaar ñi ñëpp nag ñu ne ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne nag ñooy ndaw ñu jot a leen ñaax ne pour lépp liggéey goo xam ne naka ñu ko fas yéene def jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi nañ ko jaareele ak lu waay ñu tëral jëmale ko ci wàllu fajub tubaab gi tamit naka ñu ne liggéey bi nag dina ànd ak ay jafe-jafe waaye nag ñu ngi leen di ñaax pour nag ñu muñ ñu dal dugal seen loxo nag ci mbir yoo xam ne mooy isi ab yokkute tamit nag ñu boole kook jom mu ne naka mu ngi oo képp koo xam ne rek ab xarañ teef nga jëmale ko ci wàllu fajub tubaab gi pour naka nga jàppale docteur yu ñu tànn es ngir gis na naka yóbbu nañ liggéey bi si kanam professeur Habat Robinson moom mu doon vice chancellor bi si banxasub university bu Gambia bi ak professeur Ousmane Niang moom mu doon chief medical officer si lopitaanub Edward Francis Small Teaching Hospital bi ak i tamit ku ñu naan professeur Ramon Ndiaye moom mu ndaw yoo xam ne naka ñooñu la ñu tànn es wax leen naka kàddu yoo xam ne yooyu naka moo leen di yokk jom tamit naka wax leen jaar-jaar yoo xam ne naka yo la ñoo séntu jëmale ko ci seen wàllu liggéey bi ginnaaw loolu ñaar ñoo xam ne naka ñoom bokk nañ suñuy graduate ñoom naka jël nañ seen kàddu delloo njukkal naka seen waajur yi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour doole leen docteur yi ñu tànn es ñoom naka nañ liggéey si juróom ñaari at si biir ñaari at yooyu naka nañ bàyyi xel seen wàllu liggéey bi matuwaay goo xam ne naka boobu la ñoo mën a jël pour gis nañ mën a liggéey ci banxaasu nguur gi tamit liggéey ci banxaas yoo xam ne naka ñoom ñoo taxawal seenu bopp bu ñëwee naka si ñuy yëngu lu aju ci wàllu wér-gu-yaram bi banxaas bu ñu naan Bloom Bank Gambie ñu doon banxaas boo xam ne naka dañ di yëngu ci wàllu dencub xaalis ñoom naka ci alxames bi ñoo tëral naka ab sàttagu es jëmale ko ci seen wàllub liggéey gi sàttagu ñu tëral naka dina jàppale seen client yi pour lépp loo xam ne rek ñu ngi ko nar a def ci biir banque bi muy ay transaction dinañ ko mën a def naka ci seenu mobile yi ëmbale wuñ ne nag ñu ngi si jëmi jamono joo xam ne nag ñu ngi dundum ba sub coronavirus bi ba tey loolu nag tax na kilifa yoo xam ne nag ñoom ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram bi ñu jëloon matuwaay nag tëral ab sarta pour askan wi nag jëfandikoo ko ngir ñu mun a aar seen bopp ci mbasub coronavirus bi mu bokk ci nag di sanitaay seen loxo bi tamit nag nit ñi di faral di soriwante matuwaay googu nag tax na banxaas bii di Bloom Bank ñoom nag ñu yombalal seen client yi mbir yoo xam ne nag mu ngi aju ci wàllu liggéey bi wala si mbiru bankin bi lépp loo xam ne rek ñu ngi ko war a def ci bank bank bi mun nañ koo defee naka ci seen mobile yi ginnaaw doon gaaral di dalal naka gani board of director bu Bloom Bank mi wuyoo si Jibril Igaw moom naka gaaral na kàddoom di rafetlu naka matuwaay goo xam ne kilifa yi jël nañ ko pour naka teewlu si ndaje gi mu ne naka pandemic bi mi maanaam mbasub coronavirus bi tax na naka nit ñi duñ dee mën a rang si bank bi ndax naka rang bi sax daf leen di sonnal mu ne naka ñoom duñ dee bugg a di gis seen client ni ñuy xaar naka ci lu yàgg mu ne loolu tax naka ñoom bi pour gis naka yombalal nañ ci seen biir mobile yi xam ne nañ ko jëfandikoo pour dugal xaalis wala sax génnee xaalis tamit nañ ko mën a jëfandikoo pour di yónnee xaalis. Afred moom mu doon managing director ci banxaasu Bloom Bank Gambia bi moom naka wax na ne Bloom digital mobile banking app bi mi maanaam ab app goo xam ne naka ñu ngi koy indi aids pour seen clients yi di ko jëfandikoo di def seen transaction yi doon na naka matuwaay goo xam ne moom mu ngi ko rafetlu ndax naka mbir la goo xam ne dafa yombal naka clients yi seen jëflante gi mu ne naka si app transaction bi nii mun nga faa yónnee xaalis mun nga faa fay naka say bor mun nga faa jëlee bor tamit naka mun nga faa yónnee xaalis wala sax nga jëlee fa xaalis mu ne naka mu ngi ñaax seen client yëpp pour ñu jëfandikoo naka bile app def ko naka ci seen mobile yi ngir ñu bàyyi naka di dem rangi si banque bi. Paul J Mendy moom mu teewaloon fa banxaasu Central Bank bu Gambie bi moom naka wax na ne banque bi naka jël nañ matuwaay gu rafet lii naka bokk na ci yéene goo xam ne naka ñoom ñu ngi ko am pour yaxanal naka liggéey gi jaarale ko seen diggante ak client yi tamit naka indi ab wéccite ci wàllu koom mu di wax ne naka banque bi ñoom jël nañ matuwaay gu rafet moom naka mu ngi koo rafetlu mu ne si jamono jii banque bi naka yéene goo xam ne am nañ ko mu ngi leen di ñaanal naka pour ñu motal ko mu ne ci loolu naka dinañ si lëkkaloo ak seen àndandoo yi pour gis naka tëral tëraloon nañ ab système goo xam ne dafay gën a yéexanal liggéey bi Bloomberg nag ñoom ñu ne seen liggéey bi nag dañ bëgg rek client yi ñu am si mbégte ak kontante mu tax naka ñu isi online banking bi nii mi maanaam sa mbiru banque bi mën nga ko jëfandikoo ci sa biir mobile bi kilifa yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci Bloomberg bi ñoom jaajëfal nañ seen client yi ci wóolute goo xam ne nag am nañ ko ci ñoom ak tamit ñu ne ñu ngi leen di ñaax pour nak ñu duggal seen loxo ci walum jula ki ni dooleel len tamit nak ñi wone ne kep ko xamne rek ab jula nga nga doon jula gu mag ma nga doon jula gu ndaw ñom dinañ la mëna taxaw nga lëkkaloo ak ñom gis na nak am nga fa bank ñu ne bu fekke ne tamit jula gu mag nga wala nga nek nak ab talibé bu dem school mën nga fa am sa bank bu fekke ne tamit ne yow ya ngi liggéey mën nga fa ubbi naka bank ñu ne naka seen liggéey bi nañ ko tassaré ne ci tundu yu nek ci biir réew mi pour gis naka yombal nañ ko seen client yi saafaral naka jafé jafe gu ñu nek di jankwante ci wàll bank bi yi tamit naka gis ne yaxanal nañ seen liggéey bi ba nga xam ne seen client yi naka wóolu nañ leen tamit naka nañ am wóolute bu dëgër jaarale ko seen diggante ak ñoom Global Properties ñoom it ñu doon ab banqaas koo xam ne nag dañuy yëngu ci wàllum njënd ak njaay yu pàkk tamit di samp ay kër di ko jaay ñoom nag ñoo ngénte seenu bureau bu es goo xam ne nag samp nañ ko mu doon ab taax bu toll si fukki néeg ak benn taax bi nag samp ji dugal nañ ci koppar ki war a toll si ñaari million bu ñëwee nag ci xaalisi dollar global property nag doon na bànqaas goo xam ne nag seen tur feeñ na torop bu ñu bi nag ci biir réewub Gambie bi dañu ñu xamee leen nag ci wàllu njënd ak jaay yu pàkk di samp kër di ko jaay ak tamit di joxe kër nag luwaas global property si jamono ji nag ñoom ñu ne seen liggéey bi dañ ko fas yéene gën a dëgëral yaatal ko tamit ci biir réewub Gambie bi mu tax naka ñu samp ab bureau gu dem nag ci fukki néeg ak benn muy taax goo xam ne nag ñu ngi ko samp sa kóotu taax bi naka ñu ngi jéem a fexe pour gis ne pare nañ ko balaa weerub décembre si at atub 2023 global properties ñoom naka doon nañ ab real estate njula goo xam ne yàgg nañ di jula ci biir réew mi te naka seenum njula gi commencé nañ ko naka fukki at ak juróom ci ginnaaw te ba ñoo commencé nag njula bi ñu ngi am nag bureau si Kerba Avenue sa foofu naka la leen ñu bëri xamee te ñu dugal nañ seen loxo ci mbir yu bëri ñu bokk nag ci taarix ki nga xam ne nag moo ko ŋànk muy si Sol Fraser moom si jamono ji nag mu ne mu ngi am mbégte ak kontaante ci goo xam ne nag compagnie gi am na ko. Sol Fraser ba tey rek mu continué di wax ne jom ak it yéene goo xam ne nag am na ko jëmale ko ci wàllu liggéeyam gi moo tax nag mu liggéey si juru fukki at ak juróom ba yàlla def tey nag muy gën a yaatal loxoom mu ne mu ngi jaajëfal kiliyaanam yi ndax ñu moom kenn mënut ko wan a def kiliyaan yaa ci jàpp moo tax nag tey ñu mën a am nag façon lu mel nii mu ne nag office bu ees maanaam mbiru bu ees boo xam ne nag ñu ngi koo samp bokk na nag ci yokkuteeb njula gi mu ne moom nag amoon na yéene pour gis nag am na compagnie boppam mu ne si jamono ji yéene googu nag nekk ne te ñu si jàpp nag mooy liggéeykatam yi ak ñi nga xam ne nag ñooy client yi ñoom si juru fukki at ak juróom doon na ñoo xam ne nag ay luwaaskat leen mu ne yokkute gi nag mënut ko wane am bu fekkee ne nag àddina si jàppuñ ci mu ne nag si jamono ji moom mu ngi continué di am yéene gu rëy pour jàppale tamit doomi réew yi ñu am nag fu ñoo jonkoon ak seenum jaboot mu ne nag am nañ yéene pour gis nañ place bi nag maanaam suñu bureau bu es bi ñu pare ko balaa weerub décembre atu 2023 mu ne bu booba nañ am naka fu yaatu foo xam ne nañ ko mën a joxe pour rent tamit naka ñun dinañ am fu yaatu foo xam ne nañ fa mën a defee naka seen ab liggéey global properties nag ñoom doon nañ banqaas boo xam ne nekkuñ di liggéey rek ci biir réewub Gambie bi waaye naka compagnie bi seenub yokkute gi tax na naka ñu am ab biro ci Sénégal am sa Ghana tamit naka ci at yi ñu passé ñu ngi fas yéene naka am ab yokkute tamit am ab bureau ci yeneen dëkk yi nekk ci biir Afrique. Sol Fraser di CEO bu Global Properties ba tey rek mu continue di wax ne ñoom seeni yéene naka lu mu doon mooy gis ne naka saafara leen jafe-jafe goo xam ne nit ñaa ngi koy jànkuwanteel jëmale ko naka ci wàllu pàkk wala mbirub kër te loolu tax nag ñu jël matuwaay bi te ñu ngi fexe pour gis ne seen client yi nag am nañ fu óor foo xam ne nag dañ fay tëdd ak seenum jaboon mu ne si juróom fukki at ak juróom compagnie bi nag ñu ngi liggéey te gis nga yokkute bu ñu nekk di am mu ne lii nag wane na dëgg goo xam ne nag ñu ngi ko am jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi Njilaan Faye moom mu doon business development and public relations manager bi ci banxaasu global properties bi moom wax na ne si jamono ji nag ñu ngi am tuuti reng housing project project boobu nag dañ ko jël rek pour gis ne yombal nañ kër yi tamit nag samp fa ab kër goo xam ne naka doomi réew yi nañ ci mën a am ba nga gis ne naka nañ leen génnee ci jafe-jafe gu ñu nekk muy mbirub luwaas gi mu ne tamit si jamono ji naka kër googu ñu bari naka ñu ngi ciy ut pour am ko mu ne waaye tamit boo demee sa Sénégal am nañ fa place koo xam ne naka ñu ngi ko ngénte lu yàggul mu ne si semaine gi ñu nekk sax jéem na ñoo jaay lu bari mu ne loolu naka ñu ngi cee sant yàlla Global Properties moom naka doon na banqaas goo xam ne naka dafa taxawal boppam te si jamono ji naka moo doon compagnie bu jiitu bu ñëwee naka ci wàllum njaay mi ak njënd kër gi wàllum njaay mi ak njënd pàkk gi ak it wàllum luwaas gi te si jamono ji naka ñoom am nañ place sa Sénégal am nañ ko tamit sa Ghana ñu ngi am yéene tamit pour tasaare seen loxo ci yeneen tund yu nekk ci biir Afrique matuwaay gi rek ñu jël ko ci tur boo xam ne naka ñu ngi ko jox seen bopp muy dëggu ci seen wàllub liggéey bi jàppale seen kiliyaan yi gis na seen kiliyaan yi muuñ nañ tamit naka egg ci marché yoo xam ne naka ñoo nekk si yeneen réew. tamit naka taxawu nañ seen client yi seen yelleef ñu jël matuwaay bi tamit pour gis na naka sànni nañ seen loxo ci bànqaasu bitim réew yi. mbokk yi suñu xibaar mujj mu ngi dem nag ci marché Brikama bi ñi nga xam ne nag ñoo fay jaay ay gàtt ñoom nag si jamono ji ñu ngi joxoñ baaraami tuuma ñi nga xam ne nag ñoo nekk sa senegal ak i diggaloowu Mali bi di wax ne nag foofu moo waral naka si jamono ji njëgub gàtt gaa ngi seer lii nag ñëw na ginnaaw ba mi nekk di waajal nag lu aju ci feetu tabaski bi ñu toll nag ay semaine pour digmal ko daral bu nekk sa Brikama dañu faa jaay nag ay gàtt doon na nag ñaareeli marché bu gën a rëy ñu dee jaay gàtt bu paasee nag abu ko ñett mala yiñ fa dee gën a jaay nag muy béy xar ak nag si jamono ji nga xam ne naka ñu ngi waajal tabaski bi ñu bari naka commencé nañ di jënd gàtt mbaa ñuy jënd béy mbaa ñuy jënd nag pour gis ne naka rey nañ ko ci bésub tabaski bi bu ñu sukkandikoo si ñi nga xam ne naka ñooy jaaykat yi ñoom wax nañ ne si jamono ji nag mbirub xar gi naka ñoom commencé nañ jaay gi ñu ne waaye naka bi tax na naka ñu bari nekkuñ di génn di jënd ñu njëg bi dafa yokk ci atub ren bi du ko waral mooy diggaloo goo xam ne naka mu ngi diggante réewu Mali bi ak Sénégal ci tëj goo xam ne naka def nañ ko ko indil na ab jafe-jafe naka ci wàllub indi xar yi mu tax naka njëg bi yomb Aboubacar bi Kota moom mu gaaral kàddoom si làmmiñub jaaykatub gàtt yi sa daralu Brikama bi moom wax ne ne si jamono ji naka ñu ngi dund jafe yu métti mu ne naka yàggul sax ginnaaw ba kenn ci seen jaaykat yi demee naka si dëkkub Mali gi pour jënd fa naka li nga xam ne mooy gàtt yi mu ne waaye naka dafa jànkuwante loon jafe-jafe gu métti balaa mu doon mën a yegsi si biir réewu Gambie bi mu ne léegi naka nu ñoo mën a def mooy pour yoolale xar yi jaarale ko naka ci booda bi indi ko ci biir réewu Gàmbi bi ndax naka booda bi dañ ko tëj te ñu ngi ko bañ a ubbi mu ne looloo tax naka njëgub xar gi mu gën a yokk Aboukar naka mu continué di wax ne ñoom dañ dee def seen kéemti lay kàttan pour gis naka wàññi nañ xar yi mu ne waaye nag mënuñ ko jaayee naka ci loo xam ne duñ ci am dara mu ne boo gisee naka xar yi ñu nekk di jaay ñun ñoo leen defal lépp suñu bopp ñoo koy dem jënd ñoo koy indi ñoo leen di dundal seenu kaaraange si ñun la seenu ndox si ñun la tamit naka seenu dund ñun ñoo ko amee mu ne loolu naka doon na jafe-jafe goo xam ne ñun ñu ngi koo dund Buuba Seydi moom mu doon nag ab jaaykatub xar ginnaaw doon gaaral kàddoom moom wax ne ne nag mbiru wéccitib xaalis gi tamit indil na leen ab jafe mu ne nag surtout ma xar yoo xam ne dañ dee bàyyeekoo ca Sénégal maanaam diggaloo gu nekk ci Sénégal ak si Mali mu continué di wax ne tamit lu ñoo njëkk def mooy ñu jël dalasi bi wécci ko ci CFA pour nag mën a am xaalis ci njëg bu yomb mu ne bu ñu bàyyeekoo foofu nag dinañ indi xar yi ci biir réew mi tamit nag ñoo leen di nekk di dundal ba balaa xaar mi ni njare mu continué di wax ne loolu nag tax na njëgub xar nag si jamono ji ñu yokk tamit nag njëgub béy mbaa nag mu yokk mu ne CFA bi nag si jamono ji sax dafa yokk mu ne loolu ñun sax ñu ngi koo jooytu mu ne jëlee xar yi ci beneen dëkk isi ko ba ci biir réew mi doon na lu ser ndax nag bu fekkoon ne ñu ngi jëndee xar ci téeméer ak fanweeri dalasi léegi ñu ngi ko jëndee naka si ñaar téeméeri dalasi yenn saay naka ci tabaski bi dañ dee gis yenn jullit ñi ñu bokk naka jënd nag rey ko naka ci bés bi séddoo ndawal gi mu tax naka ku ñu naan Fa Brahma Fadera moom mu doon naka jaaykatub nag moom wax na ne moom it naka si jamono jii lu moo jaayee nag nag dafa yomb ndax naka nag si jamono ji mu ne fanweeri junne moo ci gën a yomb fanweeri junneeg juróom dem si téeméer ak fukki junne yëpp am nañ ko naka ci ay nag mu ne boo demee naka jëndi nag ci luuma bi isi ko ci biir réew mi amee seen dund gi ak leneen ak leneen doon na mbir boo xam ne nag moom jafe-jafe la ko mu nekk di jànkuwanteel mu ne ndax naka tey boo demee nga jënd nag ñeenti téeméer ak juróom fukk ëllëg boo demee di nga ko jëndee si ñeenti téeméer ginnaaw ëllëg boo demee di nga ko jëndee si ñeenti téeméer juróom fukk mu ne léegi nga xam ne naka ñu ngi waajal tabaski bi si juróomi téeméer nga koy mën a amee léegi nga xam ne naka am nañ ñaar fukki fan pour jubal si Tabaski bi ñi nga xam ne naka ñooy client yi ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour gis naka am nañ xar mbaa am nañ gàtt gu ci Tabaski bi waaye nag ñu bari naka nekkuñ di génn ndax seenub loxo jotul seenub ginnaaw Gambie naka doon na dëkk goo xam ne dëkk gu ndaw la te naka xar yu fee dugg si daf dee bayeekoo ci yeneen dëkk jaaykat yi si jamono ji naka ñoom ñu ngi joytu luñ dee jëndee naka xar yi mu tax naka si jamono ji ñoom ñu ne am nañ yaakaar ne njëgub xar gi naka dinañ ko wàññi ñu ne loolu nag ñu ngi ko wér ci diggaloo gi ak itamit si fu ñu koy jëndee muy ci dëkkub Sénégal bi. mbokk yi li doon xibaar yu ñu leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaata li ngeen dis doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeent ak jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam.